ak dissolution parti benn impact donc euh, je pense effectivement que nii euh, c'est une question d'actualité boo xamante ne euh, ça mérite d'être d'être d'être souligné parce que euh, li ñu waxoon ci euh, radiation bi delloo nañ ko président de la république responsabilité am dans ce qui se passe lan mooy haute trahison parce que loolu rek mën a tax ñu juger ko moom moo waat ne moom dina respecter et faire respecter euh, loi wu réew mi moo ko waat mm-hmm. alors loi wu réew mi lan la wax ginnaaw bi euh, tribunal d'instance de Ziguinchor waxee ne euh, Ousmane Sonko nañ ko delloo ci liste yi loi dafa ne L47 code électoral dafa ne bu ñu delloowee nit ki ci liste décision de justice nee na immédiatement l'article a utilisé l'expression immédiatement mm. l'autorité chargée du fichier cest a dire DAF dafa war a aller dans le sens prescrit par la juridiction nonobstant que ni tëj nañ révision bi waa ay la yëwén kon Ousmane Sonko dellu na ci fiche bi ci liste électorale loolu la loi wax mm. parce que recours bëri na ne ce n'est pas suspensif du tout alors donc dañu war a impérativement delloo ko ci euh, liste électorale ba pare teg ci jox ko Euh, fi parrainage am loolu loi moom moo ko wax fiche parrainage bi moom jotewul dara sax ak inscription am ci biir liste yi jotewul dara ndax joxoon nañ dem mandataire bi bi demoon li mu wax mooy wax waaw waxu dama bañ waaw non je d'accord parce que loolu tamit il faut euh, ne dafa bañ wax non mais dafa ne mënu ko recevoir tey non non euh, waaw waxuñ ne duñ ko ko jox jox fiche waaw la recevoir tey peut-être mën ko recevoir suba c'est c'est la recevoir ou du recevoir tey du recevoir dafa ne du recevoir tey donc loolu bokkul ak duñ la jox waaw suba mu ngi dinaa ginnaaw bi mu ngi El Malick nee na sax suba danañ dem. waaw waaw amul amul tay moom kay saa yu amee jot pour recevoir ndax actuellement il sont à deux cent. Euh, vingt yow mi retiré. Euh, ñaata ngeen toll. waa deux cent. bu ma lay recevoir deux cent soixante et quelques personnes mais quand il s'agit de fiche su Sonko moom problème la quoi. deux cent soixante nit ñëw recevoir nga leen jox leen fiche ñu dem mais hmm. c'est quoi le problème avec Ousmane Sonko parce que actuellement à l'état actuel mënu koo wax ne joxuma la mënu koo wax ne nekkoo ci liste bi lenn rek moom moo fi ne man li tey sama xel sama xel dafa tey mooy euh, dama dégg euh, ñu ni mbirum Mame Mbaye Niang bi vingt-six waaw léegi li may njort mooy xanaa kon dañuy ralentir pour di xaar vingt-six parce que 26 bi tamit foog ñu taxaw ci man foofu je pose des questions mënuma gëm ne procès mën na fa am. Hmm. déedéet le 26 moom gëmuma ne. procès war na mën a am foofu noonu parce que bu ñu fàtte ni ba ñu ko daanee 6 mois bi 2 mois bi ñetti appel moo dugg ñett Ousmane Sonko yoon daf ko may 30 jours pour mu def appel procureur def appel avant délai di jeex Mame Mbaye Niang sur l' intérêt civil. def appel balaa délai bi di jeex mais Ousmane Sonko dugal na appel. te ñoom bañ paree moom la dugal appel parce que yoon moo ko ko may ci 30 jours yi war nga mën a def appel. d'accord là n'est pas la question. Okay. ah si si si. foo bëgg a jëm laa bëgg xam. mais là n'est pas la question mooy munoo statuer ci cassation te statuer. ah di statuer fii d'accord. parce que Ousmane Sonko ak avocat am ce dont j'en suis mooy ñoom dugal nañ appel. mais le dernier ñu dugal. waaw ba tey yoon benn. Hmm. le juge aussi n'a pas statué avant la fin des délais d'appel. Hmm. le juge a laissé finir les délais d'appel pour soo a statuer. Hmm. ñoo nekk di nelaw fii depuis trois ans. on est sur l'appel. non on parle d'appel. non on est sur l'appel bokkul sur. non nang Bachir. onze jours moom moo dox diggante première instance bi ak appel. 11 jours waaw waaw mais il a renvoyé plus d'un mois. si il a renvoyé. parce que Ousmane Sonko bu dugalee dans les délais. le juge a renvoyé pour que. waaw les délais de un mois. pour que nit ki mën a def appel ñu dépassé. waaw mais def na appel non. si ça moom c'est léegi comme que def na appel. moom ci ñële seen euh, appelant yële. le parquet pour euh, kon euh, peine bi ak Mame Mbaye sur l' intérêt civil. waaw mais léegi lan moo tax bii ni bu Ousmane Sonko bi taxawuñ ci. balaa ñoo dem cassation taxaw nañ ci c'est ça que je ah, wuñ ko si boobu c'est pas encore boobu jeexagul. ñetti après moom moo am. si cour suprême bi kon moo wax. foog mu wax ci lële. non non léegi li tey sama xel daal mooy amaguñ jotu recevoir la léegi xanaa loolu dafa nar a xaar fii vingt 26 moom du am jotul recevoir bu bu bu amee foofu condamnation wala cassation mais euh, kilifa dina ci ñëw. xam na ko mu naan ay appel la ak lële la ñuy wax. il sait très bien de quoi je parle. procédure xam nga bu baax li may wax ni nga araftoo nga xam bu baax li may wax. non xam na xam na xam na. dix ans mam waa Thierno anyway amul benn problème. non non non non kilifa li mu la bëgg a wax mooy Barthélémy Dias ñaata at la. ak ko xam waaye Bachir a xam li may wax yow tamit nag. di araftu naan noo non appel la ñuy wax. xam nga feuilleton politico judiciaire bu ñu corseté le débat ci juridisme man dafa may ennuyer dafa may ennuyer parce que dañuy dañu dugal ci benn pax Macky Sall ak Ousmane Sonko yëpp ñëpp quoi dañoo dugal ci benn pax léegi après bëri bëri bukki ak mbaam lay doon rek yii ñuy yii sa waay di wax nii xam nga bu ñu bëggee faculté droit bi tam léegi ñu andi ko ci plateau télé yi <laughs> lakk nañ fac droit ba pare lakk lakk nañ faculté droit ba pare yow boo waxee ba pare. oui ma souffre en silence sànq yaa dafa ne pat. boo bàyyi ko mu yëgale. xam nga boo waxee ba pare yow li nga doon li ngay wax doo ci sëriñ doo ci sëriñ xam nga ak say liggéey lu mu bëri bëri doo ci sëriñ xam nga. ñu ñoo xam non droit bi ngay wax nii doo ci sëriñ. mënoo délibéré yow. non amoo aptitude pour délibérer en matière de droit bu n'êtes vous n'êtes pas doté des compétences requises pour délibérer en matière de droit sa waay nag. no ni ngay di débat laax ni ba nga joxee ñoo débat léegi. léegi da nga bëgg ne waruñu wax kon. non xaaral xaaral xaaral xaaral. aram xam nga fii wax ji lan la. Ah. affaire politique la. léegi bu ñuy wax droit pendant non feuilleton politico judiciaire toujours politique lay commencer politique lay mujjee. bi nga judiciaire bi lu ci ndaw la rek toujours te xam nga luy politique guddi yi nii. moo tax ma ne dañuy dañuy tooñ réew mi fa nga mosee gis euh, yow yow la la moo ànd lii lépp tey bu ñu ay contumace ak seen wax yooyu man koo xam ne Ousmane ko depuis mars deux mille vingt et un moom principe ba mooy du ma wuyu yoon. dégg nga principe ba mooy du ma wuyu yoon. dégg ya doo defal bu principe ba mooy du wuyu yoon. ñaata yoon yaa may dégg sa jour bi nga ko woowee gendarmerie. principe mooy du musa wuyu yoon. day teg ay écran de fumée ay contre-feu. yaa ngi may dégg gis nga. léegi nag ñun on ne va pas se parce que contre-feu Macky Sall tamit ñemewu ko laal boobu arrangé wu ko boobu mu seetaan ko. yaa ngi may dégg. personnalise. ba personnalisé. Macky Sall non c'est intéressant waaw Ousmane Sonko nee na du ma wuyu yoon. waaw Macky Sall ñemewu ko laal. waaw ñemewu ko laal jamono yooyu noonu. lu tax Macky Sall war ko laal. waaw parce que y avait les contre-coups néfastes du coronavirus. non Macky Sall la non pourquoi Macky Sall. yaa may dégg effectivement c'est lui le gardien de la constitution léegi suprême des armées et cetera yaakaarul ndam li devant les tribunaux mosu ko yaakaar foofu man mosuma gëm ne dina wuyu tribunal jàkkaarloo Adji Sarr yooyu yëpp mosuma ko gëm ak yi ñu koy toppee yëpp mm. mu taxaw ne bu ma eggee Ndakaaru nañ jëndee Macky ci palais ba alors que li ko yomb ci moom mooy mu wuyu ji tribunal est-ce que bu wuyu ji woon tribunal. Thierno c'est quoi ton problème en 2011. Macky Sall en 2011. Macky Sall a bien dit nañu génne Abdoulaye Wade ci palais bi arrête Thierno. tu es un chroniqueur tu es un chroniqueur wala tu tu dafa toogee fii militant c'est pas ton problème. ma waxee léegi ne du droit Macky Sall taxaw na mu ne damaa war a delluwaat ci kilifa gi damaa fay barricade police. waxal ci loolu Thierno non non non non waxal ci loolu. pourtant li may wax lu leer la. no lu ci lu ci ay as Ousmane Sonko Macky Sall nañ ko génne palais non wax ci li ngay wax. 2011 waaw bu ko dundal 2011 après ngeen jël seen temps de parole boo waxee ba pare nit yaa may dégg ça un mot dans le sens dans le sens que dans le contexte où bi mu leen waxee dem leen génne Abdoulaye ba pare moom eggul sax place de l'indépendance. Ousmane Sonko bi mu waxee dem leen génne Macky dafa egg place de l'indépendance bi mu ko waxee nag. Ousmane Sonko du ma ko accusé. parce que ay la xam ko yelloo. ma dafay dama bokk si ñoo xam ne dafa ëlëm sama bi ko def. bi mu wootee dala am. bi ko Macky Sall la am. arrêté il faut arrêter.

quelqu'un boo xam ce que je veux dans ce pays c'est ça que vous devez. mais quelqu'un boo xam ne bii dafa sol mbubu député lan ngeen war a dénoncer. jéem ko tudd Mamour Diallo sol mbubu député ne daaneel képp. ma ne ak lu mën a xew xam ngeen ko arrêté ñu mujj ko képp. sur ce c'est un film qu'on nous a été. waaw mais kilifa moo tax xam nga eh, looloo fi xew. c'est-à-dire xam nga leen foofu dañ fa dépassé ay nous a qu'on quand même. kilifa kii ministre de la jeunesse la. waaw la jeunesse sénégalaise am na lu bëri loo xam ne war nañ ko defal defaluñ ko ko. dama accuser Macky rek depuis 1960. war nañ ko ko xale yaa ngi la boo xam ne. mën nañ ci wax bëgg ok donc discussion de ça mais il faut qu'on arrête avec ko waxee nii Macky Sall wax ko leen il faut qu'on arrête am Mamour Diallo nekk mu ne Adji mais ñun wax ji nga baal ma quoi ñun affaire Seyd Bote affaire ko commencé yow la duñ ci saw rabal duñ ci tay baas mais dañoo ci dimbale nag ñu wax mu amal solo réew mi nag mais yow wax ko wax ko yi muy wax nii bu paree Ismaïla Madior Fall wax leneen Ismaïla Madior Fall dàq la jàng foofu après que dàq jàng Ismaïla Madior Fall dàq fi jàng kenn yaa may dégg quelqu'un qui dit que ni li muy wax. waaw kilifa quelqu'un qui dit que ni li muy wax. da koy wax sama sama mu arrangé bu kooku kooku kooku. Ismaïla Madior Fall moo taxaw fii devant tous les Sénégalais mu wax lan. waaye naanoon ndox mu wax lan. attendez non Ismaïla Madior Fall moo taxaw fii devant tous les Sénégalais mu ne man droit maa ngi ak di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko tekkee ci ah, selon nu muy arranger Macky Sall il faut arrêter dire les choses telles qu'elles sont ay nit lañu ces ministres là bu dul woon ñun duñu dara duñu tous da ngeen di nominé rek ah. a Madior n'est pas le plus pertinent dans ce pays. am na ñu ko gën a taxaw eh, eh, téeméeri eh, dina yoon. quand même il kii xëppal ma ko ndox waay. waaye yow ñu am gan bu dee da ngaa xiif man diggante xam fa laa laaj buntu DGE. buntu DGE merci bu leen yóbbu fële. merci beaucoup ñu am la. ñoo yóbbu DGE